ausubillahi min cheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki taalib bi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen jot lay kàddu yi rek ak fàttali ci ndigalu sëriñ Ahmadou Maxtar jaar ci sëriñ ak euh, sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy président actif fédération des groupement religieux et disciples Cheikh Ahmadou Bamba di soññ mbokki taalib yi ak mbokki jullit yi rek ci màggalu sëriñ Touba gi ñu daan woote ci waxtu wii di ñaar fukki guddi ci weeru tamxarit dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk di weeru août dëppoog bis bi sëriñ bi ñibbisee woon Touba Cheikh Moustapha daan ko taxawal ba egsi ci sëriñ Ahmadou Maxtaar mi yàlla na fi yàgg lool ci wér ak njabootu Daaru Xudoos gépp sëñ bi wax ne nañ ci nañ ko fàttali mbokki jullit yëpp tolluwaay jamono nag tax na nañ ko daan wootee daan ko ni taxawale defewuñu ko ni waaye nag ñu ngi sàkku rek ndax bis bi bisu jaamu yàlla la bisu fàttaliku suñu borom la bisu wéetal yàlla la bisu ñaan la ñu waaye mën a ne rek teewlu xam bis bi li mu doon li mu doon ci lislaam taxawaay bi mu am ci lislaam ak bi mu am ci réew mii ak taxawaay bi mu am ci ñi ko seq fu ci waaye mën a ne nam ci war a taxawee rek mu taxawee ko ni ci jaamu yàlla ak wéetal ko ci jàng alxuraan ak xasida ak ñaan ci gàttal daal loolu sëñ boo xam ne nañ ko jot li mbokki bi yi euh, bi nag moom ñi ngi leen di soññi ñoom ñëpp fu ci waaye mën a ne incha allah ci liggéey bi ñu fas ko yéene ànd incha allah ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm ñu yàgg ko fekke ci luñ ci ñaan yàlla nangul na ko ñaan sëñ Muntaxa yàlla suñ borom bàyyi ko fi mu yàggat fi lool lool lool lool ci ànd ak wér yàlla defal ko suutura ci liggéey bi mu eggale mébét yëpp ci ànd koog njabootu seexul xadim gépp ànd koog mbokki taalibe yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa